Thank you. asalaamaaleykum mbokk si alors Dakar TV man Dallou Dakar nuyu na len ci fi may tase yéene kaay ayca ñu dem ci la tribune la tribune ñu def euh, Macky Sall siffle la fin de la Mbamboula manam Macky Sall siffle na fin bi nga xam ne moy Mbamboula bi dafa war a arrêté waxuma ko li nga xamanteni yene kay bu gaay gën daan ko wax su ma jógee ci tribune dem ci Walf Quotidien ñu def euh, agent de l'État Macky tape dans les privilèges manam les dotations budgétaires à carburant remplacées par des indemnités waxuma ko li nga xamanteni ni Walf Quotidien ko wax suma ma jógee ci loolu damay daal l'Observateur ñu def révision euh, de la constitution Macky dans l'urgence maanaam Macky Sall mi ngi dans l'urgence waxuma ko li nga xamanteni moy euh, l'observateur moko wax suma joge ci l'observateur damay dem ci li nga xamanteni moy Dakar Times ñu def éducation nationale gros scandale à l'office du bac maanaam scandale bu maga maga maga a am ci office du bac bi ah wa man éducation nationale mom doyna war de ndak nañ Mary Teuw ñaan indi nañ Cheikh Omar Anne mi ni gros scandale

mitigé de la grève des boulangers l'État va mettre le pain sur la table madame état dina jël mburu mi teg ko ci kaw table bi état bi mi ngi lijjanti jamono ji mbiru mburu mi ndax ku ne xam na ni Sénégal lu ñu xam moy bu ñu xëyee cap ñi xam mos mburu amatul ñetti fan Sénégal nga toj waxuma ko li nga xamanteni critique ko wax Mbokk Sénégal jox leen ma sen ndopp ma waxati leen amna lu xew fé ci Kër Massar bu ñuy lakk mbalit bi nga xam ne dafa jën mbëbës mbalit bi nekk mbëbës bu ñu koy lakk biir kër Masaar kenn dootul nooyi saxaar bi day dugg ci biir kër yi dañuy sëqat oho oho kër Masaar kenn nooyeetul ndax mbalit mi ñuy lakk mbëbës waa président son excellence doo wax ci soo soosu nekk mbëbës sonal na waa kër Masaar de waxuma ko waa kaayam ñoo ko wax baay baay